voilà ma léegi ma maa ngi ñëw nag ci question exactement lu bees lii muy le cas Bourgi woneeti mhm. il y une chose nouvelle donc ñaari chose nouvelle yooyu yu wone ni parce que ñenn ñi dañuy wax ah dé pour mu am révision il faut une une kii nouvelle un élément nouveau un élément nouveau ñaar au minimum ñaari élément nouveau am na mhm. yu war a parce que bu nouveau wul woon bu nekkul woon du ñu condamner l'état du Sénégal te ministre bi même bu muy expliquer wonewul ni que mais dañu ne kenn mënuñu. mais seen demande boobu dafa mel ne gars farataaluñ ko révision procès bi on n'en parle pas. élection mu wax la leen mhm. révision procès bi au contraire parce que dañuy xam lu sérieux la. Mhm. ñun loolu moo ñu yóbbu woon ci dialogue. te bu ñu demee app bi ba kañ la. arti non mais révision procès processus bi la commencé na juridiquement la révision du procès a été enclenchée. comment ça. par le ministre de la justice moo koy enclenché du ñun. c'est un processus bu processus bi eggee rek da nga gis ni euh, on va convoquer le le le, le procès. Ah,